njëg gi moom bokk na ci li gën ki kii mu ngi noonu Ousmane Sonko ak euh, Omar Samba Ba euh, le premier. Diomaye Diakhar Faye président de la République du Sénégal au nom du gouvernement et à mon nom propre nos condoléances les plus attristées à la famille effleurée et à toute la nation. ce jour à Paris de l'ancien Premier ministre du Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le Premier ministre Dionne, natif de Gossas, fut un haut cadre de la BCEAO. Un homme d'État brillant et remarquable qui a servi le Sénégal avec engagement, générosité et efficacité. Nous nous inclinons devant sa mémoire et prions le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Le 2 avril 2004, jour de sa prestation de serment, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre. Le chef de l'État m'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. Le gouvernement ainsi mis en place ce 5 avril 2024 est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% des suffrages de son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Ce gouvernement donc compte 25 ministres et cinq secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Sur la base des orientations du président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultat dont j'ai la responsabilité de la direction va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de, de, notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Je donne, à, je donne à présent la parole au ministre, secrétaire général de la présidence de la République, pour donner lecture de la composition du gouvernement. Le président de la République, par ailleurs, réunira le Conseil des ministres prochainement, dès après l'installation du gouvernement Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Décret numéro 2024-939 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le de la République vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre sur proposition du Premier ministre. Décret. Article 1er sont nommés Madame Yassine Fall ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Général Biram Diop, ministre des Forces armées. Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Biram Souley Diop, ministre de l'énergie, du pétrole et des mines. Monsieur Abdourahman Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur Daoud Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Amadou Moustapha Ndjek Saré, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, M. Cheikh Tiziane Djei, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Alioun Sal, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Elage Abdourahman Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Madame Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des solidarités, M. Yankoba Djemé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Ibrahim Si, ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Madame Hadi Dien ministre de la Jeunesse, des et de la Culture, Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur Alioun John, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Monsieur Muntaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2. Sont nommés secrétaires d'État Monsieur Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries. Monsieur Momad Talandao, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. Monsieur Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Monsieur Bakary Sarr, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941 portant nomination du ministre secrétaire général du gouvernement. le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, décret, article 1er, M. Ahmadou Al-Amimou Mohamed Lo est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di baamu li ñu wax léegi ci kàllama nasaraan wax ko ci wolof ñuy doore wax ji ci jaale senegal yépp jaale suñuy bopp waaye jaale surtout njaboot ak mbokki ki fi doonoon élimaanu jëwriñ yi di Mohamed Boun Abdallah Dionne minga xam ne borom bi moom na ko tey ñu koy jaale ay mbokkam di ñaan yàlla ci weer wu tedd wii ak fan yi ñu toll mu tombeek fukki fanu yu mujj ci weeru koor yàlla na ko yàlla xaare àjjana yërëm ko te jéggal ko di wax ni it son excellence le président de la république joxe na ay ndigal pour ñu jël matuwaay ñu war a jël yépp ba nguur gi euh, taxawu njabootam ba liñ ci war a def yépp ñu def ko it bu loolu weesoo ñuy fàttali ni njiitum réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daf ñoo tàbboon ñaari fan ci weeru awril def ñu elimaanu jëwriñ yi daal ñuy sas nag ne nañ ko jéggal jébbal ay proposition yoo xam ne dafa war a loolu moo waral suñu taxawaayu tey bii ndax liggéey boobu def nañ ko diñ ko war a defee jébbal ko président de la république muy gouvernement bi nga xam ne mooy bu yees bu Sénégal tey ci fukki fan ci weeru avril muy gouvernement boo xam ne nag namm nañ ci mu doon gouvernement bu bu bees ak bu yeesal gouvernement boo xam ne li tax sénégalais yi woteel président basiiru Diomaye Faye mooy jàpp nañ ni bëgg nañ li fi newoon ñu jëlee ko fi bëgg nañu li tubaab di wax rupture am gouvernement boobu loolu mooy taxawaayam muy gouvernement boo xam ne it la ñu ak sénégalais yi wax kook ñoom te tënk ko ci baatu projet muy mbébét di ñu am ñun ci Sénégal te tax sénégalais yi wóolu président Diomaye Diakhar fay ba woteel ko ci téeméer bu nekk lu ëpp juróom fukk ak ñeent ak lu tegal projet boobu nga xam ne moom lañu yaakaar ni dina indi coppite gu sax ci biir réew mi gouvernement bi projet boobu la war a méngool wala moom lay méngool muy gouvernement boo xam ne ñaar fukk ak juróom ci ay jëwriñ la masalan li ñuy wax ministre waaye nag comme lii woon suñu yitte mooy ñu def suñu kéem kàttan ba wàññi gouvernement bi ni mu doon tollu mu ci am yoo xam ne ci ay ministère dina diis trop ci benn mbagg moo tax ñu jël ay naïb secrétaire d'État nga xam ne mat nañu juróom gouvernement bi nag li nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Diakhar fay joxe ci ay tegtal wala ndigal ci gouvernement bi mooy na nekk gouvernement bu jege askan wi bëggatuñu ministre yoo xam ne bu ñu leen fasee ba tabb dañuy sori askan wi duñu xam duñu xam lu xew ci réew mi muy donc gouvernement de proximité muy gouvernement boo xam ne bëgg nañu mu yeesal ci fànn yoo xam ne day jëm ci lu tubaab di wax efficacité mooy xarañ ci jublu ko jublu ci loo xam ne njëriñu Sénégalais yi kese la ci base boobu nag la président de la République wax ni li bëgg mooy gouvernement de résultat mooy gouvernement boo xam ne président de la république wax ni li mu bëgg mooy gouvernement de résultat mooy gouvernement boo xam ne dañu war a gis jeexital ci jëfinam waaye it résultat yooyu ñu war koo am ci ay poñ poñ yooyu bokk na ci yitte yi ñu am ci programme bi programme président basiru Diomaye Diakhar fay nga xam ne ci lañ ko falee mooy lépp lu jëm ci njàngale mi yar bi waaye li jëmit ci yëngatu ak xëyu ndaw ñi ak jigéen ñi ñaareel bi mooy dund gi nga xam ne seer na ba ñépp yëg ko ci réew mi mu war doon yittee gouvernement bi ba ci fan yi di ñëw ñu fexe ba dox ay jéego yu wóor ci lu jëm ci wàññi dund gi ñetteel mooy lépp lu jëm ci atte justice ñu teg ko ci maandute teg ko ci respecté sàmmonteeg li nga xam ne mooy àq ak yelleefu sénégalais gu ne waaye it lépp lu jëm ci sellal ci ni ñuy yore li tubaab di wax bonne gouvernance lépp lu jëm ci sellal ak lépp lu jëm ci saytu ni ñuy yore alalu réew mi ni ñuy yore koom-koomu réew mi ak ni ñuy yoree ressources naturelles réew mi ñeenteel bi di lépp li jëm ci moom suñu bopp moom suñu bopp ba mun a am suñuy dogalu bopp waaye moom suñu bopp ba li nga xam ne surtout ci wàllu koom-koom nag ak ci wàllu li ñuy tuddee ressource naturelle mooy li nga xam ne yàlla may nañu ko ci alal goo xam ne mu ngi ci suuf wala mi ngi ci géej gi wala mu ngi ci feneen ak feneen ñu fexe ba moomal ko suñu bopp ba kenn du ñëw di ko foqati suñu loxo juróomeel bi mooy li nga xam ne mooy li ëpp solo ci senegal li ñuy wax cohésion nationale mooy senegal jàmm lañu musa xam demlante la ñu mus a xam kal kallante la ñu xam kafante lañu ñu mus xam amul xeet amul waaso amul jiine ñu fexe ba loolu ñu gën koo dëgëral ci réew mi ndax loolu mooy li ëpp solo ci réew mi loolu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 mooy fileeg altine bu soobee yàlla ñu gaawantu ba li ñuy wax passation de service mooy lenge gi nga xam ne ñi fi newoon ci ay ministre war nañ koo jox ñiy ñëw ñu mun koo def ci ni mu gën a gaawee ba nit ñi mun a toog commencer liggéey bi parce que xam nañu li sénégalais yi di xaar ci ñun ñaareel bi mooy dañu wax ni ñi ñu tàbb jox leen ndomb tàng bu toll ni ministre de la république président de la république dafa jàpp ni loolu mënul ànd ak leneen ndax responsabilité bu rëy la moo tax ñu ne kuñ dem ba jàpp ni réew mi soxla na ko ci niveau bii ñu toll ba tabb ko bu dee am na beneen mandat boo xam ne mu ngi woon ci ndoddam moo xam maire la wala président de président conseil départemental wala député président de jox na la weer pour nga mën a tekki ndomb tànk boobu def say passation pour mun a jagleel say waxtu yépp ci liggéey bi nga xam ne moom lañ la sas muy liggéeyu ministre de la République lii mooy tegtal yi nga xam ne mooy tëj waxtaan wi ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà mi ngi noonu mu di euh, gouvernement bu yees euh, bu Ousmane euh, Sonko. ji ci aljuma ji juróomi fan ci weeru avril ci la ñu ko teg Moustapha ñu ngi ko doon wax ni ki sànq gouvernement de vingt cinq ministre ak cinq secrétaires d'État yu nga xam ne moom lañ ñu tegal am na ci déjà ay tur yoo xam ne ñu ngi ko doon wax sànq rek ñëw nañu ci gouvernement bi.